وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ay yéen mbokk jullit yi ñu ngi yeesal di sant suñu boroom mi nga xam ne dañoo war a sax di ko sant moo ñu bind moo ñu moom luy xéewal ci ñun moo ko ci def moom dong moo ñu mën a fegal lor ñu ngi seedeel Muhammad jaamam la woon bu mu yónni woon ci ñun mu ñuy jàngal nan lañ koy jaamoo ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla sax ci loolu bu leen dee mukk lu dul fekk di ngeen koo jébbalul ay yéen jullit ñi xam leen ne yàlla day moo ñu bind la taxoon mu bind ñu mooy ñu jaamoo ko moom kese bañ ko bokkaaleeg dara mu indil ñu ay tegtal yu yaa ci asamaan yi ak ci suuf yi ak suñu bakkan lu ñuy xamal la nga xam ne mooy màggaayam waaye melal ñu it mbugalum mu tarma bi nga xam ni nii doomu aadama bu xellu day yëpp mbugal moomu dana ko fekk ba mu góorgóorlu def ndigali borom bi waaye góorgóorlu sori tere borom boobu ko mën a yóbbu ci mbugalam mbokk julit sunu borom yàlla day tiital nañu ci sawara lool melal na ko ci melokaan woo xam ne képp koo xam ne yaa ngi koy bàyyi xel day dana war a delloo si la nga xam ne moom mooy seen xel sawara moomu day suñu borom yàlla subhanahu wa taala ba ko yonent bi melelee it kii nga xam ne nii mooy ba ko borom bi melelee te melokaanam bi ne ba muy wax ne maa ngi leen di moytuloo sawara buy tàkk jëm kaw du wàcc mukk kenn du ca sàbbi lu dul aji texee bi ki nga xam ne dafa weddi ndigali yàlla daa di wëlbati ko bañ a topp la nga xam ne nii moom mooy ah jaamu boroomam subhanahu wa taala mbokk sawara mi ngi nii sunu yonent leeral ko ci sunnaam gannaaw ba ko alquran leerale su ko defee sunu borom yàlla subhanahu wa taala melal na ko melokaan woo xam ne gis nga rek nekk na musiba boo xam ne doomu aadama yi duñ ko mën a dikku waxumaa nag ñàkk a xam ne ñoo te nar a tàbbi nar koo dëkke nar di lekk sawara di naan sawara di tëdd ci sawara kenn nit ñoom dana bëgg a dee du mën a dee kenn nit ñoom doon na bëgg a jeex te loolu du ko man loolee mbokk da ngay gis ne moom la ñu suñu borom yàlla subhanahu wa taala di tëkkoo ci téeréem bi ci aaya yu baree baree baree bari ngiree yóbbuñu ca la nga xam ne nii mooy tax ba doomu aadama yi man koo ragal te mbokk ragal yàlla benn résultat dong la mën a am bu baax mooy mu dox sa digganteeg la yàlla xaraamal yóbbu la nga def ay ndigalam am naa lépp loo mën a tudde ragal yàlla te du lii yaa ko ko tuddee waaye du ragal yàlla mbokk àllaaxira bu ñu fa yàlla dajalee génne ñu ñun ñëpp suñuy bàmmeel ci suuf sii ñu yàlla bindee taxawal ñu nekk des milliards yi milliards lu yàlla xam ñu nag nit ñi ginne yi malaaka yi ñëw wër ñu yàlla dana jox ordre malaaka yi ni dem leen jëlilil ma jahannam mbokk jahannam mi ngi yàlla subhanahu wa taala denc ci kaw asamaan yi su ko defee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jahannama boobu dana am juróom-ñaar fukk junniy jàppukaay bépp jàppukaay juróom-ñaar fukk junniy malaaka ñu ciy téye mu nekk quatre milliards neuf cent millions ci ay malaaka ñoom ñooy poñe sawara mu mel na fasu naaru góor boo xam ne nii daa génn ci géttam gis fasuy jigéen sawara di tëb di dal di bëmb sami'u laha taxayuzan wa zafira mu yuuxu yuuxu yoo xam ne ak di génne ferñeent yoo xam ne mboolem ña nekk bi si pénc ñépp daañu sukk ci seeni oom xattaa yonent yàlla yi suñ borom yàlla ne yaa ngi seen xeet yépp ñu nga sukk gannaaw boo ku nekk ñu woo ko ci ab téeréem fay ko la nga xam ne muy ak fayam mbokk keroog doomu aadama dana xalaataat ne waaye aka ne xoon ba muy dund ma waajaloon lu mën a dox sama digganteeg sawara si te mbokk bu keroogee ana lan la ko loolee di jëriñ ay yéen mbokk jullit xool leen loo xam ne quatre milliards neuf cent millions ci ay malaaka moo koy encadré moo ko sawara boobu nan la nar a yaatoo xoolal suñu jant bi nga xam ne ëpp na suñu suuf si plus de cent cinquante millions de fois benn pepp suuf lay doon ci biir sawara ma gaa yi kon sawara nu mel waaye kaay déglu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te na nga xamee ni nii nettali na ko mooy benn bis toog na ay saha ak i sahabaam ba mujj ñu dégg dënnu bu mag ci kaw asamaan yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen lii day benn montagne la bu ñu bëgg a xoon ci biir sawara depuis juróom ñaar fukki at mi ngi doog a yegg ca fond ba yàlla subhanahu wa taala jégteel leen ko mbokk sawara boobu ak xóotaayam la yàlla ne dana ko feesal dell ci ay nit ak i xeer ak i jinne loolu mbokk mooy li nga xam ni doomu aadama bu ci am sikki sàkk day sawara mooy nar a nekk sa wàccuwaay doonte ne moytu leen rajo yi ak télévision yi bokk na lu ma gën a yóbbu ci dem xutba bi benn théâtre kat bu nekk ci télévision yi ñu jàpp ne borom xam-xam bu mag la di ko déglu fu nekk mu ne man daal sawara daal jàppuma sax ne am na sawara daal xam naa mooy ñooñu yow àddina buñ fa duggee ña ko def yàlla dajale leen na leen yéen a bon yéen a ñàkk jom waaye dem leen dugg àjjana mbokk loolu waxi kéeféer la loolu weddi alquran la weddi sunna la weddi la nga xam ne nii mboolem diine yi jiitu woon yëpp wax nañ ko mbokk sawara mi ngi noonu suñ borom mu ne dinaa ko feesal mbokk sawara noonu mu nekkee ak yaatuwaayam ba ak xóotaayam ba noonu la nekk ay bunt suñu borom mu ne lahaa sabaatu abwaab li kulli baabin minhum juzun maqsum juróom-ñaari bunt la wa li kullin darajaatu mimma amilu ku nekk na sa jëf toll noonu ngay dugge sawara bu dee da nga koo yeyoo fa buur yi kàccoor yee jaar fa agresseur yi jaar fa njaalookat yee jaar fa lekkatu riba yi jaar ila axiri suñu borom nag mu ne inna almunafiqina fi darki al asfali min annar wa lan tajida lahum nasira amma bu dee naafiq ya ñoom ñooy gën a suufe kan mooy naafiq mooy ki sol mbubbum jullit nekk ci biir jullit ñi ca xol ba la ca nekk mooy pas-pasu yéeféer kii la ñuy tudde mooy naafiq ay yéen mbokk jullit sawara day lu tàng jiir la sawara day lu metti la suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na képp koo xam ne dem na tàbbi sawara dan doon na mébét ay yàlla jinne ma sawara bi ay yàlla jëlal samay doom samay wayjur jëlal samay giir jëlal waa adduna yépp tàbbal leen sawara ca man ma daal di mucc ci sawara si loole la suñu borom yàlla subhanahu wa taala wax ca la nga xam ne mooy suratul maarij doonte ne bewteg doomu aadama yegg na ci sama nopp yi may na ma benn waayu bu naan man day ànd ak sëñ diw dem tabbi sawara moo ma gënal dem tabbi aljanna mbokk boobu sawara moo feeñugul rek ci sa kanam mbokk sawara saa ngi noonu ak xeen ya fa yàlla waajal ak la nga xeen yoo xam ne id al aglaalu fi a'naaqihim wa salaasilu yusxabuun summa fi silsilatin zaruha sabuuna ziraan fasluku baram bi nee na dañ leen jën ca xeen ya xeen yooyu ñu jële ci biir sawara duñ yem ci jën leen ca takk seen tànk yaa takk seeni loxo bañ leen ne ay bal bal dañ koy jël root ko seen gémmiñ génn ko ci seen suuf def ko li nga xam ne noonu la ñuy def ginaar yi ci fañ leen di soodee lii mbokk mooy la nga xamee ne nii moom la ñu sunu borom yàlla dig ci loolu amma la nga xamee ne nii yonent bi sallallahu la nga xamee ne nii suñu borom mi ngi koy wax nee na sa war a xer ñeenti ya fay génne day mel ni ay giléem yu tegaloo moo gaa yu loo xam ne xer ñeentam day toll ni giléem sa war a boobu moom nan la nar a toll borom bi subhanahu wa taala wax ñu ne am na fa lu ñuy tudde yaxmuum mooy loo xam ne dafa mel ni amoniaque gannaaw ba am na fa ndox moo xam ne kenn xamul fu tàngaay ba yem gannaaw ba am na fa takk-takk yoo xam ne kenn mënu ko imaginer yatuufuuna baynaha wa bayna xamimin aan comme na ko suñu borom yàlla di waxe ca waaqiya ay mbokk waa sawara yàlla dana leen nattoo ñu xiif lool waaye bu ñu xiifee am na lu ñuy lekk ñi ngi lekk ci shajaratu zaquum shajaratu zaquum boobu nga xam ne yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu doon dañ caa jël benn toq yàlla waggal ko ci kaw suuf mboolem ndox yi ak ñam yi nekk ci kaw suuf dana we xat forox ba kenn dootu ko mën a lekk benn toq zaquum waaw ana koo xam ne zaxum boobu moom mooy ngay lekk bu dégg bëccëg te suñu borom nee na daan ca lekk feesal ca dell la nga xam ne moom mooy seen biir ya gannaaw ba ñu dem nandal leen ca la nga xam ne mooy xaniim comme na nga xamee ne nii suñu borom yàlla subhanahu wa taala ma nga ñu koy nettalee fële nga xamee ne nii mooy ca zaxum ay yéen mbokk jurit waa sawara day daan mar waaye buñ maree suñu borom nee na ndox ma ñu leen di jox di naan day mel na kal muhlu comme bi teex boo xam ne bu ñu ruyal la moom la malaaka yi ñëw indi leen di leen ko xol buñ ko jubee seen diri kanam ñu rotteeku daanu ca biir buñ ko naanee mu xotti seen put ya xotti seen butit ya tuuru ca suuf noonu la ñuy dëkkee ak borode ya nga xam ne mooy dal seen bopp ya guddi ak bëccëg lii moom la mooy la suñu borom yàlla subhanahu wa taala nekk li ci la nga xamee ni nii moom mooy xar waa sawara ay yéen moo ko jurit waa sawara daan solu ana la ñuy sol suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na ñoom day buñ ñëwee xutti at lahum siyaabun min naar ay mbubb lañ leen di daggal ci sawara mbubb yoo xam ne godoro buñ ruyal la gàllawaay boo fekketee ñooñu di peinture gannaaw étage bi nga xool godoro boobu ñu takk bàyyi ko xel suñu borom nee na godoro bu ñu ruyal moom lañ leen di solal doog leen tabbal ci biir sawara yal na yàlla musal ñu ci loolu ay yéen mbokk julit sawara day mi ngi nii waa sawara daan tëdd waa sawara daan sangu magaayi waa sawara lu ñuy tëddoo suñu borom mu ne lahum min jahannama mihaadun wa min fawqihim gawaash la nga xam ne moom la ñuy tëdde moom mooy ca xali sawara ya la nga xam ne mooy mbajjee ñuy sangoo mooy mbajji xali sawara ya booleeg la nga xam ne nii moo leen fay xaar ci mbugalum borom ba ay yéen mbokk julit xam leen ne day sawara mi ngi nekk nii suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na heure boo xamee ni nii seen der ya doon na der yoo xam ne nii yu dem la ba lakk ba jeex suñu borom yàlla changé leen beneen der bu dul moo bu dul boobu ci loo xam ne nii du dakk ba faw loolu moo tax ba mbokk daan ñaan waa gardien sawara ay yéen gardien yi ñaan leen seen borom mu wooye sal ñu benn bis ci mbugal ñi loolee duñ ko am gannaaw bu ñu ñaan Malik ay yow Malik yow mii kilifa ak waa sawara ñaanal sa borom mu rey ñu benn yoon ñu ne leen déedéet da ngeen doon ñoo xam ne ñu sax ngeen di doon sawara boobee doomu aadama yi daan ca dugg kenn seeni kattan comme niñ ko waxe sànq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na ñoo xam ne sawara dana yegg ba nga xamee ne seeni oom ñii ba seeni ndigg ñii sawara dem ba yegg seeni put ña fa gën a woyof mbugal ci abi taalib ca lay bokk mooy ña nga xam ne dañ leen di teg ci kaw sawara mu mel ne ay dàll ci ñoom seen yuur ya di bax ñooñu ñoo gën a woyof mbugal ci biir sawara loolee ki nga xam ne mooy imam muslim solo na ko ay yéen mbokk juri di ragal leen sawara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci na sahabatul kiram mu ne wallahi bu ngeen xamoon li ma xam seen reetaan dana néew lool seen i jooy dana bëri lool bal da ngeen génn ci àll yi sax jaaxle lool lu waral ñu ne ko ma yow yeneen ci bi loolu lan la mun a mooy bi ma yàlla wone ajjana waaye bi ma yàlla wone sawara sahabatul kiram ñoom ñépp doon ñoo xam ne ñuy sëgg di joy lañu ay yem mbokk jurit lii nga xam ne mooy sawara bi xoolal sawara adduna bi ngeen gis ak ñi nga xam ne ñoo ci dee ci ay lakk xoolal naka ñu nekkee te yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sawara bi yàlla di xaari nit ñi yowmal qiyaama gën na koo tàng juróom ñaar fukki yoon sahabatul kiram na ko ay mi yàlla yónni sawara biir débbe yoon na mu ne déedéet gën na koo tàng juróom ñaar fukki yoon mbokk ak yéeféer heure bu duggee sawara sunu borom yàlla da koy bindi beneen bindin ndax xam ngeen ne waa àjjana it yàlla da leen di bind yeneen bindin yàlla yóbbu leen comme ne seen baay aadama tolloon mooy ñu nekk trente mètres ci kaw asamaan doon ñoo xam ne nii ñu taaru la ñuy doon loo xam ne xëy na dana am yeneen xutba yu ko indi waaye waa sawara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na benn yéeféer ci sawara yàlla dana ko pompe pompe ko ba la nga xam ne mooy mbaggu ndeyjoor ak mbaggu càmmoon boo yoroon fas da nga daw ñetti fan doo koo jeexal ngir la nga xam ne ni moom lay nar a rëy ba benn bën ci bëñum dana rëy na jabalu Uhud loolu la ko yàlla doog a tabbale ci biir sawara di ko mbugal mbugal boo xam ne fépp ci yaramam foofu moo koy yëg lii mbokk mbir la moo xam ne gannaaw ko bañ ko suñu borom nettalee woo nañu benn woo woo boo xam ne woowu ko yéefér yi woowu ko naafiq yi suñu borom dane yaa ayuha alladina amanu ay yéen ñi nga xam ne da ngeen maa gëm ku anfusakum wa ahlikum naara fexe leen ba mucc ci sawara waaye fexe muccal ci seenu njaboot sawara boo xam ne la koy alimenté moom mooy ay xeer ak ay doomu aadama malaaka ya fa nekk ñu tar lañu ñu ñàkk yërmaande lañu lu leen yàlla def loolu la ñuy def te duñu mooy yàlla tarfata ayin mbokk woote baa ngoog sahabatul kiram day dañ doon wax aka neexoon woote ba yem ci ne yaa ayuha alladina amanu qu anfusakum naara aka neexoon yàlla rek ne ay yéen jullit ñi fexe leen ba bu leen dem sawara waaye yàlla dolli ci fexe leen ba bu seen njaboot dem sawara lii mbokk nekk woote bu rëy bu yàlla woo ñëkk a gëm di leen moytaloo tartar bu rëy boo xam ne nekk na ci seen kanam ngiree ñooñu muy woo dem ñoo gëm ay ndigalam ñoo mën a jëfe ay ndigalam borom bi di leen wax jël leen seeni matukaay jël leen seeni en fagaruwaay bala ngeen a dem ci bis boo xam ne ni du foose la ñuy fegoo suñu bopp ci sawara la ñu mën a fege ci sawara ci damm lañ ko mën a jële kon loolu muy wane ne dañoo war a góorgóorlu xoolaat bu baax suñu bopp waaye xoolaat bu baax suñu njaboot loolee suñu borom yàlla subhanahu wa taala gannaaw ba ñu waxee loolu ci même saar bi suratu tahrim wan nañu yoon boo xam ne yoon bu gaaw la bu ñu mën a muccal ci sawara ca mooy ay yéen jullit ñi tuub leen dellu ci yàlla tuub boo xam ne tuub bu sell mbokk lan mooy tuub bu sell mooy nga xool la nga gàttal lu woon ci ndigalu yàlla yi nga daal di jóg daal di kay taxawe ay yow mi nga xamee ni nii yaa doon sàgg ni julli ya di sàgg na julli mbooloo ay yow jigéen bi doo daawul muuru ay yow mi nga xam ne mosoo génne zakat ay yow mi nga xam ne da nga daan sàgg ne koor nga góorgóorlu tuub dellu sa boroom tuub boo xam ne bu sell la waaye ay yow mi yàlla nattoo woon njaaloo carte ay yow mi yàlla nattoo woon jël alali jàmbur ak lekk riba ngalla waay tuub leen jënd ci yàlla tuub bu sell la borom bi subhanahu wa taala ni lii de bu ngeen ko defee dinaa leen baal seeni bàkkaar yépp dinaa leen dugal àjjana joo xam ne dana daw ci suufam la nga xam ne mooy dex ya bis bi nga xam ne yàlla du toroxal yeneen ci yàlla waaye yàlla du toroxal kenn ku gëmoon ànd ak yeneen ci yàlla loolu mu lay wan ne boo bëggee mucc ci sawara àndal ak yeneen ci yàlla ba ci aw yoonam ma yowma laa yuxzi llahu annabiya walladina amanu maah yàlla du toroxal ak yonentam du toroxal képp ku gëmoon ànd ak yonent bi daal di jaaroon te la nga xam ne mooy aw yoonam keroog ba ñuy wax yàlla matal la ñu suñu leer la nga xam ne nii mooy leer ngay dox seen kanam ak seen ndeyjoor ya di ñaan yàlla mu matalal leen ko te jéggal leen ko ndax mooy ki nga xam ne moo am kattan ci lépp lu mu mën a doon. mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul kenn ci yéen du góor du jigéen lu dul yowmal qiyaama yàlla dana ko woo kenn du dox digganteem ak boroomam amul kenn kuy interprète digganteem ak boroomam su xoolee loxo ndey loxo ndey jooram du gis lu dul lu baax lam jiitulam yowmal qiyaama su xoolee loxo càmmooñam du gis lu dul zakkaar yum jiitaloon su xoolee kanamam du seen lu dul sawara yonent bi alayhi salaam mu ne ay waaye ragal leen yàlla ragal leen yàlla ut li ngeen doxale seen diggante ak sawara te mooy même bu doon seen xaru tàndarma la sax doxale leen ko seen diggante ak sawara kon ndekete yoote bokk na lu ñu mën a fegal sawara mooy alal ji nga xam ne da nga koo bëgg ñu bari di ko sàkku ji fu haram yow nga jël ko joxe ko te yàlla tax loolee lum bari bari ak lum néew néewu mën na laa musal ci sawara yonent bi alayhi salaam mu ne même bu dee amu leen li ngeen joxe na ngeen fexe laabal seeni kaddu walaw bi kalimatin tayiba fexe ba lu ngeen di wax lu jub la fexe ba lu ngeen di wax lu baax la jëm la nga xam ne nii moom mooy seen mbokk julit ay yéen ñi nga xam ne yéeni julit ñi góorgóorlu leen yégaat la nga xam ne moom mooy seen responsabilité ya rawatina yow mi yàlla wërsëgal may la ak kër bu dee ne yàlla dana laaj borom réew mi responsabilité réew mi yow yàlla dana la laaj responsabilité sa kër nga la waay fexeel ña ca nekk ci ay soxna ak i doom fexeel ña ca nekk dëkkandoo ci ak yow nga taxaw ci ñoom bañ def ndigili yàlla yi taxaw ci ñoom bañ tere la nga xamee ni nii bañ bàyyi tere yàlla yi waaye góorgóorlu li lépp loo xam ne occasion la bu leen mën a yóbbu ci merum yàlla te la nga xam ne mooy film yu ban yooyee ak musique kat yu ban yooyee nga xam ne nii ñooy cinq télévision ya ak lépp loo xam ne nii dafay indi di fàttali doomu aadama yi ak mooy yàlla nga jéem a taxaw ci loolu sa kanamu njaboot te it góorgóorlu sa kemtalaay kattan bañ a am njaboot guy julli rek waaye na doon njaboot guy respecté waxtu julli fexeleen ñuy julli ca waxtu wa bu dee doom yu góor la fexeel ñuy dem ca jàkka ja ni ngay insister ñuy dem ci l'école ba di insister ñu dem seen liggéeyukaay ya la gën a yooyu mooy nga insister ñuy dem ca néegu yàlla ba ndax néeg boobu dara taba taxul ñu tabax ko lu dul ñoom moom la borom bi jàll wa ala di wax ne wa'mur ahlaka bis salaati wastabir alayha na nga digal sa njaboot ñuy julli ca nga muñ ca laa nasaluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa la nga xam ne mooy wërsëg man laajuma la ko ñun yàlla ñu leen di wërsëgal xam leen ne mujj gu rafet ka koy am mooy ka ragaloon yàlla ay mbokk doomu aadama yi góorgóorlu leen ci lii ndax kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na àjjana day mi ngi jege kenn ci yéen nu mel ne waru dàllam si ngay dugal say baaraam ci say dàll sa war it noonu la jege ci yéen lan moo waral lii mbokk doomu aadama loo mën a def ci lu baax bis boo xamee ne dugg nga ci merum yàlla dee ci merum yàlla moom mu sawar a nga jëm waaye loo mënoon a nekk ci lu bam boo tuubee tub bu sell dee yàlla tub gu sell boobu àjjana nga jëm te kenn ci ñun xamul kañ ngay dee kenn ci ñun xamul fay deeya kenn ci ñun xamul nooy deeye looloo tax ki ragal sawara te yaakaar àjjana day waxtu wu nekk mi ngi nemmee ko boppam ndax maa ngi ci ngërëmal yàlla ndax man sori naa merum yàlla yal na yàlla yombalal ñu ajjana ak lépp lu ñuy jegeel ajjana yal na yàlla fegal ñu sawara ak lépp lu ñuy jegeel sawara yal na yàlla fegal ñu suñu njaboot sawara ak mbugalu adduna ak mbugalu alaxira yal na yàlla defal ñu aafiya fi dunia wal axira yal na yàlla wàcce jàmm ci mboolem jullit yi nga xam ne dañoo nekk ci ay fitna na doon ñu nekk ca guerre ya ñu nekk ca feebar ya ñu nekk ñu nekk ca ñàkk ya ak mboolem ñu nekk ca prison ya yal na yàlla subhanahu wa taala rafetalal ñu suñu mucc yal nañu yàlla dajale ci firdawsil aala gannaaw ba ñu musalee ci mbëggalu adduna mbëggalu bàmmeel ak mbëggalu xisaabu yowma diin yal na yàlla musal ñu adduna ak alaxira اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين